li ci yéen kaay kon en direct euh, revue des titres kon dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye Ndiaye maa ngi la nuyu. maa ngi lay delloo nuyu bu baax El Hadj Ndiogou Diène xam na surno yi ñoo ngi. Massa Thiona Massa Thiona ñoo ko bokk. bi. ah noonu la sénégalais ko bëgg. Eh, ñu leen koy defal ni ñu ko soppee rek. Mm-hmm. sant yàlla. ay ca boo bëgg ñu dooree ko. l'observateur. dikk ak ñun ci tendance yi tukkee ci wootey présidentielle yi ñu doon amal démb 24 février yëf yi diis na lool ay maanaam dal euh, dernière heure Euh, waxul nag waxtuwaay bi la yoon mënees na koo jàppee ay dënn yu jug ak ay maanaam daal defante ci diggante opposition bi kenn ku nekk di wat jëmee ci sa boor l'observateur bind na Macky Sall mi ngi féete victoire am ak lu ëpp 57 pour cent Mahammed Boun Abdallah Dionne moo ko xamle na ko démb ci ñi fare ci kujje politique gi am na ñaari candidat yooy dal nañoo ci kaw presse bi Benno Bokk Yaakaar renversé na Ndakaaru euh, Touba safo yi sa Seck Sonko wane boppam ca fi nga xamante ne ji fa la dëkk muy boori Euh, Casamance ak tig-tigal googee lii l'observateur xëyee dire euh, le quotidien dik ak ñun ci tendance yi njëkk ci présidentielle 2019 yi Macky Sall jamono ji mo tek tank noné le ko bindee Sonko ak Idrissa Seck japp né deuxième tour mënut a ñàkk ci ci élection yi Boun Abdallah Dionne né sen candidat mu Macky Sall gagné na élection yi ak 57 pour cent ci xët mu njëkk quotidien direct info fa xey di lacc ndax deuxième tour duñu euh, duñu ca yegg ndax deuxième tour kon du ci lolé lañu jëm da dammel ca Kayoor ba léegi di teeñ ca Bawol direct info bind loole Ndakaaru ak euh, Paris yëf yi maanaam demul ngaay dikkul cëng maanaam farewul ci kujje gi demul ci nguur gi euh, kii di Macky euh, fële ca diwaanu Fuuta ci buur Siin ci kon Siin ak Saalum Macky moo fa teg tànk diaspora bi Macky Sall ak Sonko ñoo ko séddoo ba tey direct info bind ne lu aju daal ci dem ci prolongation mu di deuxième tour daanaka bu ñu xool résultat yi day mel ne ci loolee la jëm Ousmane mu wonee boppam fële ca diwaanu Casamance ba sax kii di Abdoulaye Baldé falanko na leen wone fa boppam soleil national li mu xëyee moo di kàddu yu bàyyee ci bàyyee ko ci bun Abdoulaye Dione mu ne Macky Sall faluwaat na ak euh, sos 57 euh, pour cent Idrissa Seck ak Ousmane Sonko ñoom dañu ne deuxième tour munu ca ñàkk ak élection yeeg ni mu tëddee yéen kay bi xëy ñu xamal ne élection yi démb yi Sénégal wane na ca boppam bu baax a baax maanaam fañ ko doon séntu foofe eh, ci la dal mu di organisation élection yu jaar ci yoon sénégalais ñor gi ñu ak mat gi ñu wane eh, ci élection yi démb yi la tribune dikk ak ñun ci tendance yeeg ni mu demee li mu ci gis mooy deuxième tour mënee sut a ñàkk ci réew tribune bind loole Macky Sall dañu ko gësam des ko baloté ci wàllu tàggat yaram ak eh, match amical bi nga xamante ne ji Mauritanie da ko bëggoon a football ak Sénégal eh, gànnaar ñoo sàkkoon loole waaye Sénégal bañ na ko record yéen kay moo bind lu ni mel ñu delluwaat ci l'observateur Alaaji Ndiogu mm-hmm. mu di lu aju ci ñi nga xamante woon ci présidentielle yi 2019 yi te daanaka euh, dooru ñu fay wuñu ma Madické Niang ak Issa Sall yéenekaay bi nañu ñoo gën a dee ci présidentielle yi <laughs>